asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak di leen ziare bu baax di leen ma masawu ci jamono ji ñu nekk muy jamono Covid 19 di ñaan suñu borom def ci tawfeex euh, tey nag dama ñëwoon en tant que député de médiation en Chine war di mën di taxawu commercant yi. ñëw wax ci mbir moo xamante ni mu ngi guette Sénégal te si l'État du Sénégal ne fait rien dans bientôt dans moins d'un mois mun na indi euh, benn situation bu alarmante ci économie Sénégal euh, ñëpp xam nañ ni jamonoy Covid lañ nekk dara yombatu dem beeg dikk bi yombatu ñu daan dem muy commerçant yi di dem di jënd di ñëw mënatuñ ko donc lu ñuy jënd amuñu ci choix bu ñu leen fayeeku la ñuy fay donc prix yi day cher mais bu ko weesoo aussi non seulement prix yi ngi cher mais ñoom aussi transport bi nga xamante ni moom la ñuy fay pour mu jóge Sénégal. jógee Chine ñëw Sénégal buñ ci daan fay benn fi mu nii ñu ngi ciy fay ñett wala ñeent loolu nag situation bi boo xam ñoom maîtriser ko situation bi boo xam ni situation mondial la boo xam ni dañuy jël shipping company ñoo jékki-jékki rek yokk seeni prix léegi nag euh, ci kaw loolu faw dina am répercussion ci Sénégal te li may wax nii c'est dans les deux mois passés la tàmbali nga xamante ni conteneur yi war a ñëw Sénégal yi war a agsi ci fan yi ak yi war a agsi ci wér yi ñu jëm yépp commerçant yi buñ ko jënd buñ daan jëndee benn yokk nañ ci ñaar tonk cela veut dire que ni prix yi c'est obligé que day yokk à que état du Sénégal jël si ay mesures ñun nag euh, suñu rôle en tant que comme que yàlla dafa def ñu jox ñu ndombal tànk euh, représenté député nekk député fii ci dëkk bi nekk médiateur ci dëkk bi donc war nañu bu mel nii di am ñu alerter état du Sénégal xamal ko ni ko am na luy géte Sénégal mu gaaw ci jóg xool mu koy lijjantee soit day wàññi commerçant yi douane bi soit day def jël ay mesure moom ñoom ñoo xam naka lañ koy régler mais ñu teel ci jublu sinon répercussions yi ci consommateur yi la te li may wax nii dans un mois di ngeen ko commencé gis dans un mois. di ngeen commencé gis ni euh, prix yi yéeg na li ngeen daan jëndee dootoo leen ko jëndee parce que commerçant yi aussi duñu perte voilà duñu perte parce que transport boo daan fay cinq mille dollars cinq mille dollars mais à deux millions léegi dem na ba presque dix millions loolu euh, benn commerçant mënu ko jëndee di jaayee prix bi mu daan jaay donc commerçant yi aussi euh, jaaxal na ma lu tax ñoom anticiper wuñu ci teel ci wax ak état bi pour que état bi teel ci jël ay mesures balaa loolu di agsi Sénégal parce que bu agsee moom flambée des prix day am te ñépp xam nañ ni Covid bii ñu bëri ñàkk nañ seen seen seen seen liggéey Covid bii ñu bëri. ñi ngi ci ay jafe-jafe lañ daan am mënatuñu koo am parce que am ñoo xam te ne seen dàll ak seen tànk lañ daan yor di xëy di fori donc Covid bi capacité euh, financière doomu aadama yépp wàññeeku na képp koo xamante ni yaa ngi daan liggéey wala nga daan fortaatu wala nga daan nekk ci économie même commerçant yi nga xam dañ daan ñëw mënatuñu ñëw. donc loolu nag ñun suñu rôle mooy alerter parce que bu ñu alerter wu répercussions yi day bari non seulement dina am répercussion ci commerçant yi parce que ñoom ñu ci bëri euh, dañuy ñëw jënd si fii am na ci ñoo xamante ni dañuy ñoo xamante ni ñun agent yi euh, dañuy leb am ñoo xamante ni ñun ak ñun ak ñoom la Euh, ñun ñoo leen di garanti rapport ak chinois donc ñoom buñ ñu demee war jaay mënuñoo jaay bu amee répercussion ci ñun lay lay dal loolu benn la deuxième bi ñoom aussi am na ci ñoo xam te ni dañuy dem banque leb xaalis pour mën a liggéey donc loolu bu dee mënuñu ko rentabiliser problème lay doon donc état du Sénégal ñoo koy ñaan mu teel jóg ci loolu bi ci topp. mooy euh, prix yi bu accès parce que prix moom ni ñu koy fixer c'est très simple da ngay calculer say say charge xam sa prix de revient teg sa marge léegi yow sa prix de revient bu ëppee sa prix de vente ba nga daan jaayee problème am na te c'est sûr avec les nouvelles données commerçant yi nga xamante ni ñoo importé ci ñetti weer yi weesu yëpp bu ñu ñëwee lañ daan la mu leen prix la leen bagage bi daan dikkee den moom moom lañ war a la mu leen bagage bi daan dikkee nga xamante ne buñ doon jaay moom la ñuy jaay moom la leen bagage bi di dikk minimum te am na ñoo xam sax mën na gën a cher loolu donc seen prix de revient moo ëppoon seen prix de moo mooy ëpp seen prix de vente auparavant donc loolu nag pour parer à tout ça il faut que ñoom ñu teel ci jóg teel a contacter état bi ñun aussi ñu alerter état bi aussi jël ko au sérieux lu ngeen mën a jàppale ñu jàppale leen ko soit ñu fexe alléger leen douane bi ma nga xamante ni conteneurs yi nga xamante dañu war a ñëw ñu yombalal leen ko pour que ñoom ñu manque à gagner boobu noonu. mu bañ a feeñ trop wala mu bañ a bari trop bu boobaa consommateur yi bañ a am répercussion mu bañ a am répercussion ci consommateur yi bu dul loolu nag euh, dina indi problème parce que déjà nit ñi comme ni ma ko waxee ci kat ci sànq seen capacité d'achat demeetul noonu parce que ñu si bëri amatuñu euh, xaalis bi ñu daan am am ñoo xam te ne dañ gën a wàññi liggéeyatuñu am ñoo xam dañoo wàññi seen salaire ndax Covid bi donc yu bëri yoo daan jënd boo ko bëggee jënd plus cher ce sera un problème donc avec les yi nga xam ni moo xew sànq Sénégal fan yi ak euh, yu bëri yi nga xam te nit ñi di kaas fii war ñoo jàpp kii war ñoo def rek donc yooyu je pense que ni war ñu ci teg beneen boo xamante ni ce ce sera. sur le plan économique nga xam te ni sénégalais dañ koy subir directement donc loolu man maa ngi alerter le gouvernement du Sénégal ñu teel ci jóg jël ci ay mesures xool euh, naka la ñuy waxtaanee association des commerçants waa ACIS ak waa UNACOIS et cetera naka la ñuy mën def ak ñoom ba manque à gagner bi du bari parce que ñoom aussi bu bagage yi ñëwee. comme ni ma ko waxee dañuy calculer ñaata laa frais ñaata laa jëndee ñaata laa def ñu nangam ak nangam laa fay ba xam lu mu leen dikk seen prix de revient temps la ñu teg ci seen marge lañ ci war a am te buñ ko tegee danañ jaay presque le double ñu daan jaay parce que li may wax nii lu ma xam la parce que ñun dañu yor société fii di joxe ay conteneur di jox nit ñi di di di di nit ñi xam. minimum le prix du transport a doublé, de, a, a triplé. Minimum, triplé. Multiplié par 3. Multiplié, le transport a été multiplié par 3. Par exemple, boo daan fay 5000 dollars conteneur bi 15000 dollars nga koy jëlee donc il faut que euh, loolu. ñu teel ko parce que gisuma kenn wax ci depuis man maa ngi doon xalaat sax peut-être association commerçant yi wala une quoi dinañ ci wax donc moo tax man personnellement ma jël sama initiative en tant que député de médiation en tant que député en Chine fii ci marché le plus grand marché du monde donc ma ñëw wax ak nit ñi ñu ñoom aussi ñu bàyyi ko xel léegi nag euh, par rapport takk googu état bi moom mooy xool naka la mën a jàppalante commerçant yi ñoom ñooy xool naka ñu waxtaanee ba mbir yi ñu mën ko alléger ba du agsi ci consommateur yi parce que bu agsee ci consommateur yi euh, répercussion bi muy amaat ci état bi rek parce que non seulement euh, il énormément de frustration loolu bu continuer lii am tey gën a yokk tàngaay bi rek donc pour man il faut que état bi éviter loolu teel koo anticiper pour euh, jéem ko évacuer donc euh, ñu bëri ñu may wax affaire situation Sénégal bi li ñuy ñaan rek mooy euh, diggante ñaari nit la ñu bañ ci dugal politique yàlla na yàlla suturaal Ousmane Sonko ba dara du ko ci fekk. Euh, Adji aussi bu dee nga mu def moom moo ko ci jugu def ko wala dañ koo tooñ aussi bu mu ci mën doon daal ñun na dëgg ki feeñ ñu xam fan la mbir mi di mujj waaw mais rafet nañ njort ni euh, ay tuuma rek yoo xam ni tegul fenn yàlla na yàlla suturaal euh, Ousmane Sonko te jàpp naa ni aussi état bi war na jël auteur jël affaire bi réglé ko Euh, ak diplomatie parce que am na ci loo xamante ni boo ko bëggee régler ci par euh, par parlo wala par fitna fitna rek ciy mucc donc ñu ñaan euh, ñoom ñu jël affaire bi régler ko ak diplomatie.